sax ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu di ñu suivre bëgg a lancer appel nag autorités sénégalaises yi notamment le président sortant le ministre de l'intérieur le chef d'état-major général des armées le haut commandant de la gendarmerie et toutes les forces de sécurité et de défense du pays di leen wax ne na ñëpp prôné jàmm na ñëpp wut jàmm ndaxte élection présidentielle peuple bi mooy décider peuple bi mooy voter peuple bi mooy joxe baat baat boobu nag désiru changement bi nga xam ne population Sénégal wane nañ ko durant toute la campagne Sénégal yépp ñu ngi ci teg seen bët fépp foo xam ne coalition bi dem na fa leader bi dem na fa muy le président Idrissa Seck gis ngeen la vague orange des centaines et des centaines de milliers de personnes loolu wane na ni Sénégalais yi dañu bëgg a changer désiru changer boobu nag ñi ngi ñaan ñi nga xam ne tey ñoo fi nekkoon ci nguur gi ñu sàmm seen ngor sàmm seen jom ba bañ a mujje puso bi muy réer lay Wade jaar na fi Abdou juuf jaar na fi kenn ku ci nekk dem nga joxe lenge yi ginnaaw bi nga xam ne que ni askan bi jëlaat nañ seen baat bi nga xam ne moom lañ la joxoon. ku ci nekk jamono yi ci senegal xam na ne Macky Sall est minoritaire ku ci nekk xam na ne jamono ji ci Sénégal Macky Sall jeexal na loolu la picc yi sax di sab di woy kon nag ñoo ngi koy woo moom Macky Sall ci jàmm di ko xamal ne ko au soir du 24. bu yàlla defee li gën muy coalition Idy 2019 jël ndam li waay waay bu mu yóbbu senegal ci guuta bu mu yóbbu senegal ci bain de sang bu mu yóbbu Sénégal ci rayante boo xamante ne bii dara jaru ko yàlla jox na ko nguur juróom-ñaari at def na li mu mën sénégalais yi doyal nañu bëgg nañu jël seen dëkk jox ko keneen waay waay na dimbale Sénégal mu bokk ci ñi nga xamante ne bi comme Ablaye Wade ak Abdou Diouf ni ñu ko defee dinañu construire wala ñu teg seen pierre ci démocratie Sénégal ndax leneen lu mu def lu dul loolu màbb nga fondamentaux wu démocratie Sénégal te loolu nag moo tax ñu koy lancé un appel solennel au président sortant réew mi depuis année 1800 yi ñu ngi voté Sénégal moo njëkk ci démocratie ci réewu Afrique yi bi ñu dalee voté yàgg na Sénégal am na culture vote kon démocratie Sénégal boobu nga xam ne moom la ñu ñëpp nawe démocratie Sénégal bi nga xam ne moom la ñu ñëpp bëggee ñoo ngi ñaan le président sortant bu mu ko yàq bu mu ko salteel ndax li waral tey bailleur de fonds yi li waral tey banque mondiale li waral tey FMI ñëpp wutali Sénégal c'est parce que Sénégal teg na fi ñaari alternance yu leer président bi biñ ko gañee dem na wane na stabilité wane na réew moo xamante ne bii ñi nga xam ne ñoom ñooy les investisseurs et les entrepreneurs am nañ yéene dugal fi seen xaalis yi ndax lan ndax jàmm ji ak stabilité bi nga xamante ne bii président yi nga xam ne ñàkk nañu nguur wane nañ ko joxe nguur gi ci jàmm ci loolu nag lay woo Macky Sall di ko wax ne le soir du 24 waaye waaye bu 19 heures jotee 20 heures na woo Idrissa Seck jébbal ko réew mi ñu def rëkkal ko junjung yi mu buub ay bagaasam daal di dem fa mu bëgg a dem dëkk mu dëkk fa ñu jëlaat suñu dëkk ñu defar ko changé système bi defaraat tëggaat constitution bu bees jox justice bi indépendance bu wér bu leer dagg buubu jaam yi tasaare lor yi dàq leen xëcc njariñ yi indi ko ci senegal comme ni ko Idrissa di waxee loolu mooy sunu yéene. loolu nag ñu ngi ci woo population Sénégal yépp di lancer appel aussi la jeunesse sénégalaise di leen wax ne nañu teg opération de sécurisation des vote bépp jeune bépp mandataire wala ngay plénipotentiaire ñoo ngi lay ñaan ci centre de vote bi à partir de huit heures na la fa fekk ba vingt et une heures ba baa ñuy joxe PV yi bépp mandataire bépp représentant de bureau de vote bépp ni plénipotentiaire ñoo ngi leen di ñaan yendu leen fa añ yi dana leen fa fekk lépp leen fa war a fekk dana leen fa fekk ñoo ngi ñaan aussi jeunesse su Sénégal jeunesse su coalition du 2019 jeunesse su coalition Sonko jeunesse su coalition PUR jeunesse su dikkee bu ngeen voté ba pare 17h na leen fekk ci centre de vote yi yéen ñëpp ci bunt bi ñoo ngi leen di woo ci loolu di leen ko ñaan 17h. képp ko voté ba pare di h na la fekk ci centre de vote bi nga vote nga taxaw sécuriser sa vote ñu def dépouillement yi taf PV yi génne résultat yi yéen ñëpp ngeen dugg jël ko photographier ko yónnee ko par internet pour que ñu mën a jël les résultats les vrais résultats avant muy dem préfecture wala muy dem ci commission de recensement des vote loolu mooy li nga xam ne moo ci des li ñu waroon wax wax nañ ko li ñu waroon jëf jëf nañ ko li ñu waroon informer informer nañ ko ñi ñu waroon a yëgal ñëpp yëgal nañu leen li ci des nag mooy lenn rek moo ci des mooy sécuriser sa vote ba kenn du ko foqati sécuriser sa vote ba kenn du ko nangu sécuriser sa vote ba kenn du la jaay doole jaay doole googu nag ñi ngi ñaan di lancer appel xalif généraux yi di lancer appel Serigne Mountakha Mbacké di lancer appel Serigne Mbaye Sy Mansour di lancer appel Serigne Thiénaba di lancer appel xalif général des Layènes di lancer appel xalif général des Niassènes di lancer appel église catholique bi di leen wax ne Sénégal toll na ci tournant boo xam ne désiru changement bi dafa leer désiru changement bu leer boobu nag ñoo ngi ñaan ngeen wax ak le président sortant xam na ne il est minoritaire mu jël ay bagaasam mu dem mu delloo ñu suñu ay réew suñu réew ñu defaraat suñu réew loolu daal moom la ñuy lancer appel di leen wax yéen ñii di ñu suivre message yi li ci ëpp solo fi ñu toll nii mooy sécurisation du vote wax ji mag yi def na lii ak defut lii wax nañ ko wax nañ ko ba mu leer programme ak Idy 2019 wax nañ ko ba mu leer xamal nañ senegaal kan mooy Idrissa xamal nañ Sénégal lépp li nga xamante ne bii Idrissa ko jariñ ci réew mi xamal nañ waa Sénégal gi mu doon xamal nañ waa Sénégal xam bi mu yore xamal nañ waa Sénégal potentiel bi nga xamante ne bii ñoo wër Idrissa nga xamante ne bii fukki parti lañu ak ñeent ànd ak cinquante maires ànd ak presque quatre vingt mouvements j'ai des centaines ñëpp jóg bàyyi li ñu yoroon te kenn ku ci nekk mënoon ngaa yor réew mi wala nga am projet de société nga bàyyi loolu nga topp Idrissa ngir jàppale ko ngir désiru changement bi sénégalais yi am ñu mën ko ñu mën ko matal kon nag yéen mbokku Sénégal yéen ñi ñu suivre ci diaspora bi yéen sénégalais de la diaspora kenn ku ne am nga sa partition booy joué ci lii nous, nous sommes devant notre histoire. nu sommes devant notre avenir. Notre avenir est en kon képp ku nekk ci diaspora bi képp ku nekk ci biir réew mi képp ku bokk ci coalition Idy 2019 maa ngi lay ñaan nga sécuriser vote bi wooteel pour ñu sécuriser vote yi wooteel ci centre yi yónneel ci centre yi yónneel ci bureau de vote yi fépp foo xam ne représentant ma nga fa dem leen ngeen dimbale leen parce que ñii ñu jàkkaar lool dañoo jël ay bandi ak ay nervi yoo xam ne dañ leen a nar yóbbu ci centre yi bu ñu fa demee ñu créer la zizanie pour saboter vote bi bu ñu duggee xool gis ne li leen votel bariwul ñu jéem a indi foofu boucan pour créer fa problème ñoo ngi lancé appel ministre de l' intérieur ñoo ngi koy wax ne ko na ko na sécurité bi doy ci centre de vote yépp na sécurité bi doy ba képp koo xam ne amuloo droit dugg ci centre bi doo fa dugg maa ngi saluer nag li nga xam ne moom la le gouverneur de le préfet de Louga wax préfet bu Louga nee na ku dul mandataire doo plénipotentiaire amuloo sañ-sañu dugg ci bureau de vote yi ndax bu ngeen seetloo politiciens yi ministres yi ak directeur de société yi dañuy bàyyi ba 11h midi ñu def seen délégation and ak seen i garde corps dugg ci bureau de vote yi di influencer ak a ak a jéem a nax nit ñi yooyu yëpp nag ñu ngi ciy interpellé Aly Ngouille Ndiaye ministre de l' intérieur. ku dul plénipotentiaire doonuloo mandataire amoo benn sañ-sañ ci benn centre de vote kon yéen membre coalition Idy 2019 yéen ñii di ñu suivre maa ngi leen di ñaan ngeen jàllale message bi ngir ñëpp dégg ko xam ne bu fa politicien duggee am ngeen sañ-sañu dugg fa loolu Sénégal gépp laa bëgg ngir yàlla jàllale leen ma message bi ngir yàlla bépp politicien ngay ministre ngay Aminata Tall ngay ab directeur bu ñëwee complexe gi gaañu complexe policiers yi ci bunt bi dañ leen di bàyyi ñu jàll te amuñ ci benn droit amuñu droit bàyyi benn ministre wala lenn ku dul yoro yoroo ju mandataire wala nga yor badge plénipotentiaire amuloo sañ-sañu dugg ci bureau de vote loolu la yoon wax loolu nag maa ngi ñaan yéen ñi ngeen jàllale message bi ba waa coalition bi ñépp xam ko par exemple man Assane su ma déggee ne Dame Diop walla amine Tall dugg na ci bi centre de vote nangam dem fa di taxawaalu na waa coalition boobu tamit yónnee seen ay responsable foofee ñu dem fa dugg fa ñoom it taxawaalu comme ñoom bu polis teree ngeen ne ko ñee tamit am nañ génn parce que fii ñun ñëpp ñoo fi bokk yam ku dul mandataire doo plénipotentiaire amuloo droit dugg foofu message boobu bëggoon naa gaa ñëpp xam ko yéen ñëpp sénégalais lambda bi yow mi nga xam ne doo dara mécanicien nga wala dawalkatu Jakarta nii nga simple nga ñu considéré la comme noonu am nga sañ-sañu bu ministre Moustapha Diop tey duggee ci centre de vote di di di taxawaalu yow it nga dugg taxawaalu parce que yoon may ko ko loolu bëgg naa ñépp xam ko ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam parce que li ñu waroon def def nañ ko yàlla nag moom mooy décider moom mooy maye ndam mais nous sommes quittes avec notre conscience Nous avons expliqué au Sénégalais, nous avons informé aux Sénégalais sur les enjeux qui nous guettent, nous avons informé les Sénégalais sur la situation du pays, sur la gestion gabégique de ce pays. Et nous attendons maintenant les résultats. J'espère que le peuple sénégalais sera à la hauteur du changement que tant de personnes, que des millions de personnes ont le désir. Parce que, comme vous le voyez, nos richesses sont, été bradées toutes les entreprises du Sénégal, les PME, PMI, sont en quatre appuis parce que la richesse, ce qui est le plus important dans le pays, ce qu'il y a de plus important dans le pays, est bradé aux étrangers. Nous pensons que le régime de Macky Sall a atteint ses limites. Nous pensons que le régime de Macky Sall a expiré. La date de péremption du régime de Macky Sall, c'est vingt 24 février, mes chers amis. La date de péremption du régime de Macky Sall, c'est le 24 février. Allons tous voter très tôt et sécurisons notre vote. nañ leen xëy suba teel dem vote ji massivement fraude bi il faut ñu jéem lu ñu mën pour fraude dégg nga benn dëkk boo xam ne treize mille personnes la woon moom ñoo fa am dix-huit mille inscrits naka la ab dëkk mën a amee treize mille personnes ñu def fa dix-huit mille inscrits cinq mille yooyu fan la jaar ñan lañu. ak yeneen xeeti càcc yoo xam ne gaa yi découvrir nañ ko je pense que commission bi nga xam ne moom la Mamadou Diop Decroix jiite ak ñoom As Babacar représentant wu parti yi nga xam ne ñooy quatre partis opposition bi ñu ngi ciy liggéey liggéey boo am solo pour informer les observateurs de l'Union européenne et les observateurs de la CEDEAO donc ñooñu seen liggéey li leen ci war ñu ngi koy def pour informer leen pour xamal leen ne nguur gi actuellement mi ngi ci trente cinq mille vote trente cinq mille personnes yoo xamante ne bii kenn xamul fan lañ jógee ak naka lañ leen inscrire ak naka lañ leen dugale ci fichier bi ak litige yi nga xamante ne bi am na ci loolu nag ñoo ngi ñaan Aly Ngouille Ndiaye mu saafara ko nu mu gën a gaawee ngir bañ a indi bain de sang ci réew mi bain de sang amalul njariñ kenn bain de sang amalul njariñ Macky Sall amalul njariñ opposition bi Sénégal moo ci perte kon nag ñoo ngi ñaan autorité yi ñu am retenue ñoo ngi ñaan waa Sénégal ñëpp jóg xëy suba teel dem voté ji voté pour la changement voté pour la coalition IDI 2019 ñu mën a changer système politique u Sénégal Idrissa Seck mooy ki nga xam ne depuis 2004 mi ngi xeex système politique u Sénégal xeex ko moo waral depuis ans ngi nii mi ngi ci difficulté loolu nag suñ accès ba ci cappaandaw gi tey mu mel ni yàlla dafa wëlbati xol yépp ñu jublu ko mu mel ni yàlla dafa wëlbati xel yépp ñu jublu ko mu mel ni yàlla dafa wëlbati sax leader politique yi l'opinion l'opinion politique sénégalaise nationale comme internationale waaye waaye nañ leen ko dimbale jox ko seet ko saytu ko dénk ko Sénégal mu tegal ñu réforme yi nga xam ne moom la Sénégal soxla pour mën a nekk sur les rails sur les rails de la prospérité nous voulons vraiment un Sénégal de paix nous ne sommes pas des guerriers nous ne sommes pas des mercenaires le Sénégal est un et indivisible comme l'a dit Idrissa Seck dans son programme le Sénégal est un et indivisible le problème des tarixa le problème des, des détenus, tout cent a été créé par le régime en place, a été créé par Macky parce que c'est lui-même qui est parti à pour dire que, comme je suis Paul, ici à Matam, je vais gagner à 100%. Il est, il est allé à Fatigue pour dire que je suis sérieux, les Fatiguois vont me voter à 80-90%. Le problème d'ethnicité, Le problème des tariqa a été créé par Macky Sall lui-même. C'est lui-même qui a forcé la main au calife général de tijan pour qu'il fasse une déclaration pour dire que je suis avec Macky Sall. Si maintenant quelqu'un d'autre dit que oui, moi je suis mouride, je vais voter pour un mouride, c'est Macky Sall lui-même qui a créé tout, cette, tout ce clivage. C'est lui-même. C'est lui-même qui a tout créé tous les problèmes du Sénégal. Donc je pense qu'il est temps de nous de ce il est temps que tous les Sénégalais, toutes les forces vives de la nation fédèrent leurs forces pour un vrai changement, pour le changement dont le Sénégal rêve depuis 60 ans, pour le changement de comportement, pour le changement de valeur, pour le changement de la constitution qui est gage de notre sécurité. Je pense que si nous changeons la constitution, si nous introduisons dans la constitution la séparation totale des pouvoirs, des ministères de souveraineté, l'indépendance des corps de contrôle, je pense que le Sénégal peut aller loin. Il faut aussi des réformes sur le pouvoir législatif. Il nous faut des réformes dans le cadre de la décentralisation. Et dans, tous ces aspects sont énumérés et dans le programme 1, 3, 15, 45. Je pense que le programme de la coalition IDI 2019 est un programme cohérent complet et peut de l'espoir au pays, peut donner aussi une vision d'ici 20 ans ou 35 ans. Parce que avoir de la vision, ce n'est pas une vision qui est limitée à Djamnyadjo, aller emprunter de l'argent, 6 000 milliards, construire des maisons, construire des pavillons de sport, et ça se limite La vraie vision, elle tend vers 20 ans, vers 30 ans. Que va devenir mon peuple Que va devenir cette population d'ici 20 ans, 30 ans Combien d'étudiants je vais avoir à l'université Combien de médecins je vais former Combien d'entrepreneurs Combien d'ingénieurs Combien d'ingénieurs dans le pétrole Parce que le Sénégal actuellement est un pays de pétrole. Nous devons absolument former des ingénieurs du pétrole, des ingénieurs du gaz. C'est ça la vision. mais avoir une vision sur Diamniadio qui s'arrête sur Diamniadio, construire des maisons et dire que voilà, j'ai mon bilan. Je pense que ce monsieur ne mérite pas un deuxième mandat et je crois que les Sénégalais vont le sanctionner. jàpp naa ne daal mbokk yi lii nga xam ne moo xew ci Sénégal ab yar la message la boo xam ne peuple Sénégal moo koy jox ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg nguur mooy que ni. bu ñu yemalee Macky Sall ci benn mandat bi même Idrissa Seck mi ñu war a fal bu ñëwee dina xam ne bu liggéeyul daf fiy jóge c'est un message fort li tax man ma bëgg ma désirer changement bi loolu la parce que c'est pas parce que dama ànd ci coalition Idy 2019 non mais c'est c'est fondamental que ñu jox Macky Sall benn mandat c'est fondamental parce que ci lay amee lu ñuy wax le déclique déclique bi nga xam ne moom la ñu soxla ci Sénégal c'est fondamental ñu changer Macky Sall pour mun ko am mooy que ni même Idrissa Seck laa leen wax ànd naa ak moom de mais même moom dina def ci xelam ne bu liggéeyulkat benn mandat la fiy la fiy am. suñu xasee def loolu ci boppu sénégalais yi rek je pense que dinañu am yoon boo xam ne dinañu ci tege ba képp ku nar ci ñëwati jiite Sénégal di ko jiite ci jom ci ngor ci fulla ak fayda ak transparence je pense que gestion gabégique bi nga xamante ne bi moom la fi régime sortant bàyyi ci milliards yi Sénégal yi ñuy pasar pasaree élection yi des centaines des dizaines de milliards tasaare nañ ko ci Sénégal des dizaines de milliards durant la campagne Macky Sall tasaare na ko ci Sénégal lii dara jaru ko ngir lan ngir nguur ngir bëgg a moy ci nguur loolu yëpp nag mbokk yi jot na ñu changer ko jot na ñu fédérer nos forces maa ngi woo nag waa PUR maa ngi woo waa Madické maa ngi woo waa Sonko maa ngi woo waa coalition Idy 2019 nañ leen boole seeni force ci bureau de vote yi ba nga xam ne kenn bu mu sàcc seen ay suffrage bu kenn génnee nara sawi sax na ko ñeneen ñi remplacer dee leen awante sawi bi dee leen awante naani bi dee leen awante lekk bi maa ngi leen koy ñaan maa ngi ñaan responsable yi nekk ci 45 départements yi te bokk ci 44 parti yooyu ñoom ñëpp ñu dajaloo représentant bureau de vote yi laa ku ci bëgg a saw yi sax naa la ñeneen ñi remplacer nañ ko sécuriser de huit heures du matin à 22 heures maa ngi leen koy ñaan yéen ñëpp loolu mooy mën a tax suñu vote kenn du ko jël loolu mooy tax mën a tax désiru changement bi nga xamante ne bi sénégal yi bëgg nañu ko ñu mën ci accéder le 24 février dès le premier tour parce que Macky Sall peut descendre dès le premier tour xam leen ko li ñuy wax ni yëpp dañuy cuqutaan seen xel naan Macky Sall day gagné quatre-vingt pour cent xam ngeen ne koy rêvé mooy wax loolu ah Sénégal li fi nekk ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñu ngi ci dëkk bi gis nañ jàng nañ xam nañ je demande solennellement à vous tous d'unir nos forces pour que le désir de changement tant attendu pour les par les ñu mën ko réussir loolu nag pour ñu réussir ko il faut ñu jàppalante il faut ñu joxante loxo campagne bi jeex na léegi li des mooy boole doole yi unir no force pour sécuriser nos suffrages loolu nag ñu ngi ciy woo ñëpp di wax ñëpp nañ ci góor góor lu ñu jàpp ci parce que jot na Sénégal am troisième alternance jot na Sénégal ubbi yeneen horizon yu bees jot na Sénégal am yeneen perspective yu bees yoo xam ne mi ngi ci suñu kanam jot na sénégalais bi di rêver jot na sénégalais bi am envi sentir ne mi ngi ci réewu démocratie jot na sénégalais bi sentir ne am na sañ-sañu défendre ses idées défendre son programme défendre sa personnalité défendre ses valeurs défendre sa patrie te kenn du ko xoqatal kenn du ko toroxal kenn du ko dóor jot na sénégalais yi xam ne Sénégal dëkk la boo xam ne dëkku bañkat la jot na sénégalais yi xam ne sénégalais yi kenn du leen noot sénégalais kenn du leen teg lu naqari kenn du leen teg lu leen metti parce que depuis 1800 nit ñi ñu ngi xeex loolu nag bu amee ci Sénégal ñoom ay maam yoo xam ne depuis jamonoy ñoom Lat depuis jamono yi même les plus anciens que ñoom Lat Joor ñi ngi doon xeex di reyante jàkkaarloog tubaab bi jàkkaarloog la colonisateur ñenn ñi bàyyi ci seen bakkan ñenn ñi nga xamante ne bi tëj nañ leen ci ñenn ñi ñu sacrifier leen ba ñëw ci jamono yi ñoom Serigne Touba ñu exiler leen ñii lépp ndax bañ ñu ñëw ba jamonoy jamono yi 1960 ñoom Mamadou Dia ak ñoom Senghor ndax bañ ñu tëj Mamadou Dia ñu ñëw ba mille 1968 ngeen gis xeex bi fi amoon ak nit ñu ñu fi rey ngeen ñëw ba 1980 ngeen xool li fi am ngeen ñëw ba 1988 ngeen xool li fi am ngeen ñëw ba 93 ngeen xool maître Babacar Seye ngeen ñëw ba l'an 2000 xam ngeen ne Sénégal dafa mës di bañ Sénégal kenn mësu ko noot sénégalais yi kenn mësu leen noot te duñu mës a nangu ñu di leen noot loolu ma yaakaar naa ne Macky Sall xam na ko je pense que yàlla dina ko jox xel mu dal yàlla dina ko jox xel mu mat sëkk ak mat gu sëkk ma mat mat gu mat sëkk goo xamante ne bi le soir du vingt 24 dina mën a joxe lenge yi fi jàmm jox ko Idrissa ñu jël réew mi changer système bi teg politique yu bees teg système bu bees boo xam ne Sénégal yëpp dinañ ci gis seen bopp mu am une gestion transparente de nos ressources yi xam li ñu moom li nga xam ne mooy suñu avenir ak suñu avenir u doom ñu mën ko construire ba mën a mel ni réew yoo xamante ne bii tey ay réewi guerre la ñoon waaye tey ñi ngi nekk au devant de la scène ay Rwanda ay Ghana ci réewu Afrique yi Rwanda Ghana Afrique du Sud boo leen xoolee dangay gis ne dëkk la yoo xam ne ñi ngi dem te Sénégal dafa war a dem kenn ëpp leen ay boromi xam-xam kenn ëpp leen xam-xam kenn dàqu leen a jàng kenn ëpp leen potentiel kenn ëpp leen ressources humaines waaye waaye lan moo ñu manqué li ñu manqué rek mooy njiit yu mat njiit yoo xam ne dañuy bàyyi seen seen parti te topp patrie bi njiit yoo xam ne dañuy sacrifier seen bopp ngir seen peuple yooyu lañu manqué te je pense que gis nañ ko ci Idrissa Seck je pense que bu ñu jàppalee Idrissa Seck dinañ am njiit boo xam ne mat na sëkk li mu doon ñor na am na expérience mature na ba mën a teg Sénégal ci raayu émergence ñun ñii aussi di ay rakkam mu mën ñoo teg ci yoon boo xam ne ñoom suñu fi jógee ñun ñëpp danañ mën a ñëw aussi continuer vision boobu ngir Sénégal mën a jëm ci kanam lii daal ci lu ma leen di wax di lancer appel jeunesse bi encore une fois nañ leen sécuriser suñu vote génn leen ngeen toog ci bureau de vote yi ak centre de vote yi génn leen yéen jën su Sénégal dimanche incha allah à partir de 17h képp ko añ rek demal ci centre de vote yi ñu toog xaar résultat yi au soir du yàlla defal ñu feex ki nga xam ne moo gën ci Sénégal yàlla teg ko fi te ñu ngi espérer ne mooy nekk Idrissa Seck leader de la coalition Idy 2019 waaw one love ñu ngi leen di ziar bu baax di kontaan ci yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm xam naa ne ci live yi ak waxtaan yi xanaa mu am cas force majeure wante fi après incha allah élection yi la ñuy dellu si waat waxtaan ak yéen ci wàllu live di ñaawlu nag sëriñ Laat Gaynde Fatma sëriñ Laat Gaynde Fatma euh, doomu sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma la di murit comme man bi ma ko gisee barki démb muy génne ay audio waxu sëñ Muntaxa ci télévision TFM am naa lu ma metti torop am na lu ma metti torop moom laa bëggoon jeexale sëñ Laat Gaynde Fatma ressaisirul delloo sil sa xel sëñ Laat Gaynde Fatma ressaisirul delloo sil sa xel àddina jarul lii àddina jarul ngay taxaw naan Sëriñ Tuubaa bàyyiwu fi barke Laat Gaynde Fatma yow laay waxal àddina jarul lii àddina warul tax politique gu Macky Sall bi warul tax ngay dénigrer liggéeyu Serigne Touba warul tax ngay yablu Serigne Touba wante mënoo yablu Serigne Touba mënoo dénigrer Serigne Touba sa bopp ngay dénigrer sa bopp ngay xeeblu yow laat ngay defaat ma soo taxawee ne Serigne Touba bàyyi fi barke nga ñemee wax loolu. ñemee génne audio yu sëñ Muntaxa di waxtaane ak président wala audio yu sëñ Muntaxa doon gërëme président ci Ila Touba bi bi biñ koy construire nan ko ah lii de liggéeyub sëñ Touba la suñ Touba ku koy liggéeyal di ko gis nangam sangam ca contexte booba nga jël ko di ko politique ñëw TFM di jaay waxi sëñ Muntaxa laaj laa defar ma décevoir nga nit ñëpp décevoir nga nit ñëpp man décevoir nga ma yàlla mi ma tiim xam na ne tuuti nga ci laat gaynde ma yow tuuti nga ci sama kanam man mu joxatuma la benn considération amul benn considération bu ma lay jox man jàpp naa ne ku ku Serigne Touba di sa maam ku Serigne muudu Moustapha di sa maam ak li mu liggéey nga xamante ne bi bi ñu taxawee ne jumaa ji duñ ko tabax Serigne muudu Moustapha jëlee raay bi njaareem indi ko Touba te murid di sëñ mbamba yi def ko ñu tabax jumaay sëñ Bamba ji sëñ Baye Bamba bàyyi fi civilisation bi fi Serigne Touba di fi jóge dara amu fi tey Touba nekk deuxième ville du Sénégal deuxième ville économique du Sénégal di produire lu dul jeex ci réew mi ñëpp jëm Touba nga ne sëñ Touba bàyyiwu fi barke laat gaynde Fatma yaa ma rusloo laat gaynde ma rusloo nga say mbokk mais man mii de en tant que murit rusloo nga ma te xeet naa la xeet naa la sëriñ Touba bàyyiwu fi barke baat boobu nga wax naqari na ma jooy naa ci jooyloo na ma ndax yow yow ndekete xamoo sëriñ Touba yow yow da ngaa bokk ci dereti Serigne Touba mais yow ndekete yow xamoo Serigne Touba ku ñemee taxaw ci télévision Sénégal di wax ne Serigne Touba bàyyi fi barke ñun dañoo war a liggéey yow xamoo dara politique nag bu taxee nga jaay sa ngor gaay jaay sa jom di di wax wax yu rëy yu toll nii ci Serigne Touba amatuloo benn respect mérité woo benn respect mérité woo benn considération te ça je vous le dis directement parce que li nga def c'est un délit li nga def c'est extrêmement grave parce que waxi Serigne Mountakha waroo koo jël di ko teg ci TFM ci télévision politigal Macky Sall wala jàppale Macky Sall warul tax ngay jël waxi sëñ Mountakha yow naan da nga koy teg ci télévision c'est extrêmement grave lu gën a garaaw loolu keneen dootu ko def ci àddina lu gën a garaaw loolu keneen dootu ko def ci àddina kon man tout le respect tout l'estime boo xam ne jotoon naa koo am ci Laat Gaynde ma deñ na ba ma seetaanee keroog faram fàcce amul dara dara dara benn considération bu ma lay jox yow ak sëriñ bi ma doon traité démb benn ngeen amul benn différence sëriñu ay dara bi benn ngeen ndax ku ñemee wax lii sëñ Touba moom man xamatut moo ci yow dara sëriñ Touba li mu liggéey ci civilisation Sénégal civilisation Afrique civilisation monde bi ñu koy déporté mu am histoire bàyyi fi lekk bàyyi fi patrimoine bàyyi fi barke boo xamante ne bi ci ngay dund yow ci la say baay doon dund ci lay say maam doon dund lan moo tax ñu topp leen kon sëñ Tuubaa bu dee bàyyi fi barke lu tax ñu topp leen di leen di leen di leen sukkal ak a raamal a jox kii nit la kii li mu wax est que bi muy wax mi ngi xelam kii bi muy wax ndax mi ngi xelam je me demande je ndax Sëriñ Tuubaa nekk fi nit ñi di leen sukkal di ko raamal ay doomam nekk fi ñu koy ñu leen di sukkal di leen raamal ay nekk fi ñu leen di sukkal di leen raamal di leen jox addiya te bëgguñ ci dara dajale 37 milliards ngi tabax université tabax Masaalikul naan tabax jumaay Njaareem tabax jumaay Touba du Touba actuellement neef 2 millions de personnes am budget 4 milliards di fonctionner ci réew mi yor nekk poumon économique au Sénégal nga taxaw ne sëñ Touba bàyyi fi barke non non non kii nekkuloon a xelam waaye nekkuloon a xelam vraiment loolu laa ci bëggoon a dolli di ko ñaawloo ah, en tant que murit di ko wax ne ko politique jarul lii xaalis puñetim àddina jarul lii jarul ngay ngay ngay tilimal daru sëriñ Touba wala ngay tilimal yoonu Serigne Touba waaw waaye nag mënoo ci dara Serigne Touba li muy liggéey liggéey na ko la muy takk takk na ko li muy defar defar na ko boo ko bëggee yàq wala nga bëgg koo tilimal yow yaa ciy tilime rek waaw loolu rek la vraiment nu sommes désolés man en tant que mouride et tous les mourides vraiment nu sommes désolés et écœurés du comportement de Lat Gaïndé Fatma qui n'est pas digne d'un petit-fils de Serigne Touba. Le comportement de Lat Gaïndé Fatma n'est pas digne d'un petit-fils de Serigne Touba et ça je le dis haut et fort. Voilà jërë ngeen jëf one love ñu ngi leen di tuubal di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.